Serigne Fallou maa ngi envoyé benn message pour tout le monde entier di leen ci fàttali dëkk bi nga xamante ne moom lañ nekk tey muy Touba. ñu nekk nii ci digg jumaay Serigne Touba Xaadimu Rasuul message bi ñoo ngi koy envoyé ñëpp ñi nga xam ne extraterrestre ngeen di leen gën a gëmloo seen bopp yéen der bu ñuul pour ngeen gën a xam yéen kan ndax lii ñu am tey der bu ñuul bu ñu ko fonkee à cause de Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax jàmm ji ak xew ji lépp Serigne Touba ko man léegi nag fii nga xamante ni fi lañ nekk muy dëkk bi nga xamante ne mooy Touba nekk dëkkum ngëneel nekk dëkk bi gën beneen dëkk bu dul Touba kon ñoo leen di envoyé message pour yéen ñëpp ngeen ñëw ko def li nga xamante ne mooy visite te seen visite bu sottee na ngeen doon ay murit ndax murit moo gën dul murit te gëm Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo gën lépp loo xamante ne leneen la ndax mu ñu ngi yaakaar Serigne Touba gëm ko sopp ko wóor ndax ñi fi ñëw tey jii am mbégte ak fierté yi nga xamante ne am ci fànn boo xamante bi nga xam ne mooy pàkk Tuubaa te pàkk Tuubaa bu ñu ko xalaatee mu ne pàkk lislaam la ndax lislaam mooy lan mooy li nga xamante ne moom la Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sa son li nga xamante ne mooy diine ji nga xamante ne fii tey du place benn boo xamante ne place bu jàmmukaay yàlla la nga xamante ne lépp loo xamante ne luy saayir la amu fi kenn du fi toog kenn du fi naan sàngara kenn du fi déglu musique kenn du fi sol bon nga xamante kon fii mooy dëkk bu xewal jamono yi ñoo ngi nii jigéen ne barabu Serigne Touba Khadimou Rassoul ak le premier xalifam Serigne Mouhamadou Moustapha à côté ñu ngi ci barabu Cheikh Mouhamadul Fadilu à ah, côté ñu ngi ci barabu Cheikh Abdoul Khader Mbacké ak Serigne Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadul Morsada Cheikh Mouhamadul Morsada yaakaar naa partout dans kaa xam mooy ki nga xamante ne moo nekkoon ki doon yeesal diine lislaam fu mu ci jamono junne saa ba nga xamante ne suñu borom ko fii yàlla nañu ko yàlla fayal gën ñu bay ci bijaay Seydina Mouhamadan Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa ñoo ngi am euh, benn fierté boo xamante ni bu mag la kon ñoo ngi kontaan di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen envoyé message bi yéen ñëpp nag jërëjëf. jërëjëf